jëf euh, mbokk yi jërë ngeen jëf rafet lu baax a baax a baax ànd beeg euh, Thiès production Tawfekh production di leen jaajëfal lu baax seen qualité euh, seen tànneef ak seen teewlu seen entretien bi nga xam ko fa seen amal tey jii ak ajaratu Maimouna Ndoye xam naa rek balaa may xuus dama koy bàyyi présenté wu d'abord ñu gën ko mën a xam internet yi. salaamaaleykum internet yi salaamaaleykum Tawfekh production. maa ngi leen di jaajëfal ci euh, interview bi ngeen ñëw dal leen ak jàmm ñu ngi fii pour <laughs> répondre ci seeni question voilà voilà euh, Ajaratu Maimouna Ndoye yu euh, gis ni par exemple fan yi lancé woon nga li nga xamante ne jëm ci AJFM doon doon lu am solo d' abord lan moo la poussé motivé d' ba nga ba nga xalaat ni taxawal benn kuréel bi nga xamante ni daal dafay ëmb jigéen ñeeg lañ mel. donc AJFEM des jeunes et femmes engagées euh, li tax ma créé ko parce que dama gis ñun ñu fowandoo bokkandoo génération ñii dañuy tekki ñii toog euh, amoon na benn genre disparité ma ni pourquoi pas. ñu booloo pousser jeunes yi ñu entreprendre en tout cas ñu yaakaar ni tekkiwuñ parce que embauché wuñ leen ñu ñu entreprendre xëy na yàlla ñëw donc c'est juste pour que jeunes yi gën a engagé wu gën a jël seen destin en main gën a xam ni à part ñoom euh, kenn kenn mënu leen pousser ñu tekki à leur place donc il faudrait qu'ils s'engagent wane seen bopp ñu gëm seen bopp et puis yàlla dina ñëw. donc euh, nit ñaa ngi adhéré euh, donc euh, suñuy activité au passage dañuy former jeunes yi. former leen pour ñu am métier pour entreprendre donc en plus de ça dañuy financer les femmes. donc euh, en gros activité yooyu lañ gën a dooleel formation des jeunes financement des femmes uh-huh. Uh-huh. donc donc gis nañu par exemple gis nañu yi jeunes yi ak ak ak ndaw ñi maanaam jigéen ñi ak ndaw ñi d'abord ñoom jàpp nañu ñoom AGFM plateforme bu baax la ngi tamit ñu mën a soqaliku daal mën gëm seen bopp effectivement donc depuis la création de AGFM on a vu des gens des jeunes qui ont créé des entreprises di ci yëngu ñu ngi si kontaan en même temps ñu ngi leen di ci félicité bu baax a baax a baax. Euh, Maimouna buñ buñ ñëwee si lancement bi keroog euh, yaa ngi wax ni euh, maanaam te ab politique du ko tax a jóg rek mooy amul dara lu ci rax ci wàllu politique association bi. effectivement une association est apolitique donc li li taxoon ñu jóg c'était juste pour pousser jeunes yi pour wax leen ni c'est possible. nañu jug nañu gëm suñu bopp nañu liggéey nañu suqali suñu réew ensemble je pense que euh, dinañ mën a développer Sénégal. Mmh. Mmh. Mmh. effectivement euh, Maïmouna en fait euh, par rapport ak par exemple keroog euh, léegi depuis booba léegi est-ce que nombre bi ñaata ngeen environ. nombre bi mu ngi yokku mais surtout association bi ñi muy visé cest dire ñu ngi gën a former ñu ngi gën a gis jeunes yi di entreprendre et c'était ça l'objectif principal financement bi aussi au début c'était pas bokkul woon suñuy activité mais on a vu que y le besoin donc ñoo ngi financer famille ñoo ngi sant yàlla ko mm-hmm. waaw waaw mu ngi ci financer ñu ngi former et puis et on voit les jeunes qui sont en train d'entreprendre. macha allah euh, est-ce am ngeen ci par exemple benn ndimbal ci ci way politique yi ci par exemple kilifa yi ndaxte boo ne euh, association du ministère wàllu ndaw ñi wàllu Fena Femme yi est-ce que ñoom approché nga leen ou bien ñu ah, nga ay njàppandal si benn ministère waaw bon. ñu ngi ciy xalaat sax d'ailleurs pour dem seeti ministre de la jeunesse ñu ngi koy xalaat bon parce que c'est euh, je pense ñoo bokkoon classe donc euh, <laughs> ce sera l'occasion Pape pour ñu dem féliciter ko waxaale ko aussi mu mu jàpp ci association bi. Mm-hmm. voilà donc ñu mën a wax sama HFM fi mu mi ngi ci mi ngi ci mi ngi tànk ci nga xamante ne daal day gën a dem ci jëm ci kanam mu ngi sukkandikoo sa kàddu par en conséquence. effectivement vraiment xalaatuñu woon ne sax c'était aussi important dañ ko dañ ko defoon yaaye avait vraiment le besoin mais xalaatuñu woon ni nit yi dañ ci dañ ko bëgg ba affaire bi mën leen soññ ba ñuy créer seeni entreprise euh, voilà di ci aider ay femmes aussi ça nous aussi permis de connaître. méttit bi nekk Sénégal ay petit som qui peuvent faire euh, le bonheur de certains donc euh, yàlla baax na ñu ngi sant yàlla ñu ngi ciy sant yàlla bu wér a wér. Euh, présidente tamit nga chef d' entreprise nekk ci benn structure écolière la ñu mën a wax euh, d' abord école bi ndax mën nañu xam d' abord tur bi ak li nga xamante ni moo jëm ci lu ko tax a jóg exactement. donc euh, école sama école mu ngi tudd ESM TIC école supérieure de management de télécommunication d'informatique et de certification donc école bi li ko tax a jóg mooy former former jeunes yi mais surtout former leen pour ñu compétent on a vu beaucoup d'établissements mais ñun moom on est focalisé vraiment pratique que à la fin de la formation l'étudiant sache faire exactement quelque chose et le faire bien voilà tàggat leen waaw technologie mais pa ingénieur suivant suivant nit koo xam ne dafay mën a créer luy marché voilà euh, waaw ñoo ngi ñoo ngi def tout en tout cas lépp lu ñu mën pour mu nekk école d'excellence ñu ngi koy def euh, ñun excellence la ñu xam excellence la ñu gëm donc lépp lu ñuy def on fait en sorte que xale yi motivé euh, joxe li ñu mën ñun aussi on leur donne on les met dans de bonnes conditions jox leen ay jeunes yu leen di former ba ñu ba ñu compétent surtout. Mm-hmm. Mm-hmm. donc donc pour cette année euh, par exemple année année académique bi nii euh, lan ngeen ci euh, def innovation yi nga xamante ni par exemple étudiants yi daan ci mën a gis seen bopp mën a ñëw ànd ak yow liggéey bi. d' li ñu ci li ñu gën a innové mooy côté formation courte c' est à dire on a vu que y des étudiants dañuy dem nekk ingénieur quelque part mais à la fin ils peuvent rien faire. soit parce qu'on la a donné beaucoup de bagages théoriques soit en tout cas liñ leen jox yëpp boole maanaam wax nañ leen nu ñuy rosee nu ñuy sebetee mais à la fin nañu togg ceebu jën donc nous qu'est-ce qu'on a fait on a inséré des formations courtes mais orientées résultat cest à à la fin de la formation cest à quand on est on dit que qu'on veut des développeurs web à la fin qu'ils sache développer des sites web. Pas des gens qui peuvent coder en HTML, en PHP, euh, séparément, mais quelqu'un qui peut te faire un site, mais un site web qui marche. Voilà. am compétence man maîtriser gëm seen bopp ba mën a demal seen bopp amul ay jafe-jafe yoo ci jànkonteel par exemple ci ci ci euh, école yi yéen en tant que yéen école yi amul ay jafe-jafe yoo ciy am. waaw école moom jafe na moom foo gis mbooloo tout le temps day am jafe-jafe maintenant ñun moom euh, bon on a l'habitude de ne pas trop nous focaliser sur les problèmes on est toujours centré sur les solutions c'est-à-dire dès qu'on voit un problème on essaie de de trouver la solution adaptée. donc euh, ñu ngi sant yàlla on est on forme depuis 2016 on a formé des gens compétents yuy liggéey nekk ay kilifa donc ñu ngi sant yàlla. ñu ngi sant yàlla. bu dee ci wàllu njëg yi ma jàpp ni abordable na pour xale yi mën ci ci jàng daal ndax jàng amul prix xam-xam moom. <laughs> effectivement xam-xam cher na effectivement mais on arrive parfois. pas parfois le plus souvent on arrive à coopter presque ñëpp ko déjà on voit que état day subventionné yenn yi euh, ñun aussi à l'interne on fait beaucoup de social c'est-à-dire si on voit que l'étudiant est motivé parfois avec un rien dañ lay former nga compétent voilà te avec AJFEM je suis la présidente d'AJFEM donc naturellement dañ damay def euh, beaucoup de social ci ci ESM parce que ci li nga nekk rek nga mën a dimbali waate ESM euh, waaw mën nañ ko tuddee noonu mais bon. comme li ma wax rek nit ci li mu nekk rek lay dimbaliwaate je ne vais pas aller dem naan damay dimbali nit ci euh, daaj lal donc formé laa xam formé laa mën donc ci formation laa mën a dimbaliwaate présidente en tant que par exemple jigéen yor yor structure école loolu par est que xawul jafe un peu mais amul ay quelque quoi comme ça waaw Sénégal moom nekk jigéen metti na nga nekk jigéen déjà ñi euh, gën a bari dañuy wax ni parce que jigéen nga waroo réussir donc ngay xeex di xeex ba jàng mu metti ngay sëy di jàng yor sa njaboot di jàng ba pare ba yàlla suturaal la nga def li nga yàgg bëgg créer école di ci dimbali ay doomu aadama sant yàlla sant yàlla bu wér mais nekk jigéen moom di entreprendre moom ce n'est pas facile mais c'est très possible voilà di ci sant sama borom kër aussi ci si jàppale bu may jàppale sama moom je pense pas que doon naa ko mën donc euh, ak samay doom samay njaboot maa ngi leen ci sant bu wér a wér ah. Mm-hmm. macha allah am na solo loolu sax ajaratu Maimouna Ndoye présidente AJ FM ajaratu bi am nga par exemple sama am na dernier laaj lay nekk am nga message bi nga xamante ni jàpp nga ne boo ko lancé euh, daañu intéressé wu si AJ FM ak ci école bi ngir tamit benn ñu xam ne AJ FM njëriñ la ñaar ñu xam ne euh, SMTIC euh, waaye nekk na école bi nga xam école de référence la. nekkuma kuy kañ sama bopp di wax ñëw leen HFM ou ñëw leen ESM TIC ESM euh, e TIC mu ngi doxal HFM mu ngi doxal maintenant li may li may ñaan jeunes yi mooy ñu wu ñu entreprendre ñu jëli suñu suuf yi béy ñu liggéey lépp luy tax nit avancé ñu ci ñu ciy dox loolu lay ñaan sama sama mbokku jeunes yi di la félicité aussi en tant que chef d'entreprise yàlla na leen yàlla may ndam ak muñ ak dëgër <laughs> je pense que sant loolu moom c'est c'est pas facile beaucoup d'endurance bokku de motivation mais beaucoup gëm-gëm loo gëmul c'est c'est mort d'avance soo am lépp looy def

waaw wax dëgg yàlla bon euh, sénégalaise la Sénégal laa dëkk c'est certain que y a des yuy ñëw mais man sa que je peux faire mooy formel leen seeni nit parce que ça reste ci sama cadre former leen seeni nit et puis xale yi ma yàlla dénk ma leen di pousser ñu réussir te ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax a baax a baax présidente merci beaucoup c'est moi qui vous remercie. merci merci à tout le monde. merci bon tàmm ma wax tàmm ma wax donc Sénégal am ndam rek les les jeunes on est là la richesse de ce pays donc bu ñu toog di xaar kii que ce soit nañu jug nañu liggéey nañu xam ñun ñooy kan ku jàng vingt ans je pense que amatoo leneen loo jàngiwaat nga jug liggéey moo ci moo ci topp. ak euh, tolluwaayu réew mi ak ci AJFM bi nga xamante ni moom la ak tamit euh, SMTIC bi nga xamante ni école de référence ni ko moom tuddee di ko jaajëfal bu baax di jox di daje incha allah rabbi seen beneen numéro si Tawfekh Production jërë ngeen jëf. SMTIC.